اسمني الله عند جاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل سندري بأهل بذين الأسود الكدري أه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي طالبي بكي جلدي يب الشيخ محمود المنتخى من لندن فين مننه xam ngeen ne bis bu tedd bu màgg boobu nga xam ne mooy ci fan ak juróom-ñett yi nga xam ne ci lañ jëm bis boobu nag xam ngeen ne saa soo ne ni ñu ngi koy jub di ko waajal ñaari sëriñ bi dana am kàddu yoo xam ne da koy jëmale ci mboolem taalib yi yëpp dema ko ci mboolem juddit yi yëpp soññi fàttali sant ñetti yëf yooyu mooy li nga xam ne saa su ne moom lay jëmale ci bokk taalib yi noo ngi ñaan bokk yëpp ñu déglu taataan te xam ne lépp lu bàyyikoo ci moom rek jëm si ci nun loolu mi ngi mel ni taw bii di door a noppi ci nun noonu leen la demee njëriñ la noonu la demee ci ñëpp kon noo ngi koy déglu moom mi ngi gën a nuyu mbooloo mi yëpp ñi ngi fas yéene teewlu ni ko Moustapha Diatra waxe fan yi ñuy jublu ba ci fukki fan yi ak juróom-ñett nañ fas yéene bu baax fas yéene jëfe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 jàng ñetti kaamil boo ko munut benn ba ci looman mën nga jublu ci gën a yeesal sa jaayante sëriñ bi gën a fas yéene def ndigalam ci santale ko borom loolu moo ci jiitu fan yii yëpp nag itam. fan yii yëpp nu gën cee góorgóorlu. nu def suñu yitte yëpp. def suñu yitte yëpp. muy suñu borom. suñu yëngutu yëpp itam. nu jëmee ko rek. ci jàng alquran. ci jàng alquran. jàng xasaayit. bis ba. sunu yitte yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ku man nanga nga def sa yitte yëpp na nga ci jiital jàng alxuraan jàng xasida ñi nga xam ne dañuy kuréel nañ ca nekk seen kem kattan ñiy durus nañ nekk seen kem lépp lépp lu ñu jubloo ko sant sëriñ santale ko sëriñ bi ak sant ak sant jëmmi sëriñ bi ci boppam sant ko jëmmi mu jooju moom sëriñ bi loolu mooy li ci gën a am solo loolu li ci dolli ko nag ñun ñëpp gën a jëfandikoo gën a jëfandikoo teggiini taalibe ci suñ bopp mboolem gan ñi fi ñëw ak mboolem gan ñi fi ñëw na ñun ñëpp nañ jëfandikoo ni taalibe suñ digganteek suñu bopp suñ digganteek mboolem gan ñi fi ñëw loolu loolu lu ci munta ñàkk la ndax teggin mooy li gën lépp loolu alhamdulilahi rabbil alamin ku ne xam na ko ci nituk sëriñ bi moom teggin hmm. kon nanu maasi nun ñëpp di ko def jëfandikoo ci suñu diggante di ko teeroo it gan ñi la dolli ko ci loolu nag nañ ko doon waxee ci gannaaw rek or mooy dëkk bi or dëkk bi na ko ñëpp na ko ñëpp bàyyi xel te xam ne dara jiituwu ko or dëkk bi mooy ormal sëriñ bi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 ndax ñoom ñooy yaakaar yi ëllëg yi te it lu ñu mën a yëngutu yëngutu ci sëriñ bi moo ko gën ci ñoom kon ñoom ñoo war a def seen bopp sax kon ñoom ñoo war a def seen bopp sax ñoom ñoo war a ndaw yi ñoo war a sàmm dëkk bi lu fi sëñ bi bëggut lu ñu fi gis war nañ caa def seen yitte te boole koog yar ak teggin ñoom ndaw ñi ñoo war a sàmm dëkk bi ci lépp mën na maa yem foofu Cheikh Bass eggale li ci des li ma ta wax lépp jox nañ ko ndigal mu wax ko nañ góor gi góorgóorlu ci cant gi rek góorgóorlu ci sàmm orma ji loolu rek la bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al sayidina wa mawlana muhammadin al makin wa alihi wa sahbihi zawi ridwaani wa tamkin ci ndigalul sëriñ bi ci kàddu yu yi nga xam ne yëkkati na ko léegi muy kàddu yoo xam ne matale na sëkk tojot jot na sëkk kon liñ ci dolliwaat tuuti mooy fàttali rek bis bi ni ko sëriñ bi waxe léegi Euh, altine fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar moom lay doon incha allah mooy bis bi nga xam ni ci la ñu war a amal màggal gi kon ak sëriñ bi nee na mi ngi koy yëgal ñëpp ginnaaw bu mu ko yëgalee ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi di njabootu sëriñ Touba gépp ak mboolem ñi nga xam ne seen maam ya sëriñ Touba moo leen defaroon bayu ci kenn ba wàcc ci taalib yi nga xam ne ñoo seenu njaboot. nga xam ne bis bii ñoo koy def ngir jëfe sëriñ Serigne Touba ginnaaw bu loolu jàll it mi ngi koy yëgal di fàttali ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal lislaam ji yëpp kon Serigne bi nee na mi ngi leen koy fàttali fas ko yéene ànd ni mu ko daa àndee ak yéen di fàttali tuuti rek na ci bis bii nga xam ne mooy bisu màggal gi nga xam ne mooy bis bi nga xam ne amuñu lu dul moom. ndax mooy bis bi nga xam ne bu Serigne Touba demutoon ci géej gi kon tey kenn du gore kenn du moom sa bopp kon bis bii moo ñu tax a jot suñ bopp kon Serigne bii ne mi ngi koy li ñëpp di xam leen nit yàlla yëpp bis bi nga xam ne ci la leen euh, suñ borom tegum nattu wala ca sabab sa taxaw mu teg leen ko li ci ëpp ci la koy jeexal boo xoolee yonent yàlla Yuusuf am na tom mi ngi tàmbaloon ci gént inni raaytu ahada ashara kawkaban wa samsa wal xamara raaytuhum li saajidin waaye ba natu bay jeexit mi ngi jeex ci gént ci firi gént suñu borom da ko xamal xam-xamu firi gént wa qaala maliku iitooni bihi falammaa jaahu rasul qaala rji ila rabbika fasalhu ma baalu niswati lati qata'a aydiyahunna ba ci mujj ga mu wax ne qaala ij'alnii alaa xasaa'inil ardi innii hafiizun aliim kon foofu la natt bu jeexee boo xe boo xoolee yonent Yàlla musa bi mu gënee àdduna wa awxaynaa ilaa ummi Muusaa an ardihi fa izaa xifti alayhi fa alqiihi fil yammi wa laa taxaafi wa laa taxzani innaa raadduuhu ilayki wa jaa'iluuhu minal mursaliin waaye ba natt bi tàmm da ko wax ne ko ci géej gi waaye bi natt bi jeexit mooy bi nga xam ne Firawna sonal na ko fa atbaahum firawnu wa junuuduhu baxyan wa adwan xata iza adrakahu alxaraqu qaala amantu annahu laa ilaaha illa si amana bihi banu israil rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam itam bi mi nga tàmbale woon ca Makka ca Kaaba ga muy jule yéefar yi di ko fekk di ko fitnaal waaye bi muy jeexee ci fatu Makka foofa la taxaw di wax ak di ko dégg ku faaru Makka yëpp ñëw sukk jëbali ci moom Sëriñ Tuubaa yi yàlla def bii ci la nattu bi tàmbali woon mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci mbakki baari mu dem ngir liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ay at yu bëree bëri nag mu jóge fa ba dem gànnaar ba jëm ba dem ci yéen ba ñëw njaareem ba am fa lu mat juróom-ñaari at ba 1918 ndax nattu bi daa def saa su waxtu bi accès lu ko ma santeeg ci nattu rek bu del siwaatee ñu teg ko mbooleem lu ñu toll ci nattu ba ci at mujj fa nag sëriñ bi du ko fuglu ak di ko waajal suñ borom xamal ko ne nattu yi jeex na ak pay ci des ba adduna di tukki itam nan nattu yi daa demee rek pay gi ne lay demee saa su agsiwaatee luñ la masaan jox ci ci ci ci ci xéewal rek dañ la dañ la joxal lu ko ëpp kon bis boo boobee nag ci la Serigne Touba digle ci 1918 ci la xëy xam ne suñ borom xamal ko ne natt bi jeex na bu agsiwaatee na ko ci ñëpp sant la yàlla. li tàmbalee ci ginaar ba ci gileem kon loolu mooy bis bii nga xam ne. ci lañ tàbbi ba yàlla def mu mooy biss boo xam ne nag lépp luñ ñu am rek ci lañ ko amee kon sëriñ bi ne mi ngi ci soññ bokki taalibe bi yëpp ñu gën koo fonk te xam ne boo xoolee ci mbindi sëriñ bi fu bari sëriñ bi wax na ko fa fustu la daa galwaa waa inda ba afali ma bihi uniru kulla ma afali ci la suñu borom leerale mboolem palaane palaanet yëpp ci àdduna waxaat na it alaana lil quluuba quluuba wal abdaana man qaada lii fii baladil daana kon wane na ne màggal gi adduna sëpp dañu ko ci wusi kon loola rek mooy li agsi ni kon sëriñ bi ne mi ngi ci soñ ñëpp ngir xam ne màggal gi moom borom defaral na ko boppam ba noppi aajo ju fajoo lu tàbbi ci biir ñaan ko nangu la na ko bëggee saa su agsee ndax waxoon na ne àjjana amuti bis waaye buñ demee ba ëllëg képp koo xam daa nga sonn ci sama bis bii bu ak siwaatee da ngay xéwal guddalu ko ci yow kon nag loolu lu ci waay def rek sabab mu koy defal kon nag ñu ngi ñaanalaat bu baax sëriñ bi mu yàgg fi lool te ànd ak ba yéene ji nga xam ne am na ko ci liggéey sëriñ Tuubaa te itam jëpp weesu liggéey sëriñ Tuubaa loo ko mën a ñaan loolu loolu ngërëmu sëriñ Tuubaa doo dégg mu ne la amiin ngërëmu sëriñ Tuubaa rek ko ñor kon nag ñu ngi koy ñaanal ngërëmu sëriñ Tuubaa loolu yi nga xam ne kenn nattablu ne am na ko yàlla na yàgg lool ci barke sëriñ Tuubaa ndax lu mu fi gën a yàgg rek mu nekk sagu yoonu murit lu mu fi gën a yàgg mu nekk sagu lislaam السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يسمني الله عند الجاول إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل سندري بأهل بدين الأسود كدري